billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julliti mbokki àdduna gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad di gërëm suñuy waajur di gërëm suñuy wasila waaye nag seex di nuyu soxna ya ca kër ga mm-hmm. soxna ayda tàmbeedu ak soxna maam ngay bàngura fa tabaarakallaahu ak seeni mbokka ñoom ñëpp ñu ngi toppa programme bi di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax di nuy suñ xarit suñ soppee alaaji idrissa man sa jang si soxo gannaaw buñ nuyoo nag boroom kër gi nga xam ne mooy alaaji Aboubacar li mi nga xam ne moo ñu yaatal moo soxnaam soxna Oumy li ba lii lépp mun a am mm-hmm. ah ku la defal teraanga nga sant ko gërëm ko mm-hmm. te lii lépp kat ñoom la ko defee rekk ñu ñaanal leen Sahel Network TV bi yal nañ dem ba mu lëmbee àddina mm-hmm. yal nañ dem ba mu dajee fu ne waaye nag seex yaa ngi woon ci buntu naafila yi ci fukkeeli fan ak juróom-ñeent dem war a dem ci ñaar fukki fan. comme ni ma la ko waxee woon programme bi am na ñoo xam ne ñu ngi ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. ku mel ni El Hadj Modou Turo Dabo El Hadj Serif Tambédou ak El Hadj Amadou Djigo. di ñu yàlla baaxee ñu ngi topp programme bi bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen a sant di leen gërëm kon seex ñaar fukkeeli fan bi lu ci yónnente bi wax. tabaarakallaahu ñu ngi nuyuwaat beneen yoon kontaane sama seexandoor sama dëkkandoor sama tabaarakallaahu mag muy alxaaji Essa Mbaye maa ngi koy bëggee lu bëri waaye nuyu nag mboolem ku ñuy seetaan dañuy ñëw rek tey moom continuer fañ yemoon tabaarakallaahu ci fukkeelu fan ak juróom-ñeent nga xam ne tabaarakallaahu ñu ngi woon ak yéen ci nga xam ne mooy euh, naafila na ci fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent bi yàlla da koy yëkkati dara jaam yéegal ko ci aljana firdawsi ñu ci doon leeral nag ba toll ci benn aaya xëy na dinañ mottali aaya bi rek ñu dugg ci ñaar fukkeelu fan bi yàlla moo wax ci alquran inna alladina amanu wa amilu salihati kaana lahum jannatu firdawsi nusula ñi gëm yàlla ba noppi di jëf-jëf ju baax kon ki gëm yàlla ki jëful jëf ju baax gëmul yàlla su gëmoon yàlla jëf-jëf ju baax kon jëf ju baax yi day doon sarta day doon mandarga tabaarakallaahu ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla loolu te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ca wal asri innal insana la fi xusrin yàlla moo wax ci alquran ne doomu aadama yëpp ñu ngi ci perte ñëpp perte nañ ñëpp dara seen dara doxul ñu ne ah alquran de li mu wax moom la fi xusrin ñëpp perte nañ mu ne illa la si na amoon lu dul ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla ñooñu tabaarkalla ñooñu tàmbalee tabaarkalla wane ah ñun kat ñële moom doomu aadama yëpp perte nañ waaye ñun ñi gëm yàlla perte wuñ yàlla ne illa la si na amoon waaye waa amilu salihati gëm yàlla ba noppi kon di jëf-jëf ju baax alxaaji sa li tax ma taxaw foofu day bëri ku naan la gëm naa yàlla bëri koo xam ne mu naan la man yàlla rek laa gëm fekk gëmul lu dul poosam bëri na ku naan la gëm naa yàlla man yàlla rek laa gëm su yàlla rek nangam waat naa si yàlla gëmul lu dul jigéen la gëm wala kii gëmul lu dul xaalis wala kii gëmul lu dul daraja wala kii gëmul lu dul nag gis nga gëm-gëm da ngay gëm yàlla yàlla dañ koy gëm-gëmin boo xam ne waxaamilu saalihaati yàlla ne waxaamilu saalihaati jëf-jëf ju baax it li koy dëggal ñu xam ne dëgg na ci dëgg la ci yéen wa tawaasaw bil xaqi yéen dee dénkante bil ci dëgg su may wax ak yow alxaaji esa may waxtaan ak yow nañu waxtaan te la ñuy wax ñu teg ko ci dëgg waaye ndeysaan naxante bi bëri na ndeysaan dafa am ku may waxal ne ma ndeysaan yow lii nangam boo tàmbale woon léegi maanaam gëm-gëmu àdduna dafa am yoo xam ne amul solo waaye dénkanti ci dëgg lépp looy wax doomu aadama na doon dëgg te mu doon lu loo gëm waaye bu doonee dëgg ci nga góor góor lu pour fexe pour jëfe loolu yan incha allah dimbali billaahi bëri na ñuy wax wala bëri na koo xam ne tabaarakallaahu yaa ngi koy séen wala nangam ay boobu mooy tuxul bu yomal xiyaamee xam nga lu war a loolu mm. bëri na koo xam ne la muy wax ca lamañ wala yem mu dafa jamu jamono ji sama sar man lu may wax su ma waxee nga ne ëskay <laughs> bu jëfee nga ne ibli nga ne eh, eh, firxaw ne ma tëdd eh, Égypte moo nekk fii ngir yooyu yëpp yi wara waral mooy ñàkk gëm yàlla su ma lu neex dana ma defal dara dana ma jox dara soo waxee lu neex elaji esa su la defee lay dara soo ko saagoo sago saagoo woon it dana la ko jox bu fekkee war nga cee jox loolu nga gëm ko nga gëm ne wax diwu alxaaji Adama Barrow tagg ko ba ci juróom-ñaari maamam te fekk lan koy taggee yow réew mi yépp dajale daal lañ yor yépp jox ko ko mu jiite ko lépp lu def nga bëgg a jël taxaw na nangam moom amul morom fekk lañ ko jox liñ dajale ñun nga xam ne jaaykatu caaf beeg ñun ñu nekk ca nangam faykatu impôt yépp dajale yëkkati yépp def ko ci jox ko loxoom jox ko ci baatam kooku bu defee dara it kanaa na ko alhamdulilah ci liñ bokk jërëjëf rek waaye yenn comme wan ko ne ko yow bu du toon yow nangam nangam yooyu yëpp teguwul fenn teguwul fenn déedéet teguwul fenn nit boo koy wax wax ko loo xam ne ndax tey euh, moom président bi ci boppam ma ko ma ko sañ a rek président comme maa ngi gàmb mm. waaye muy Macky Sall ku man di doon moom ci boppam moom moo war a jàllal bu ko dem ca tele ba wala dem ca rajo ba sant waa réewam ndax ñoom ñu ko óolu ba yëkkati everything jox ko ko na ko yaa ñu doy jiite ñu kon yow yaa war a sant waaye ñu nit ñi léegi tabaarkalla yooyu yëpp nag mooy watawaasaw bil xaqi yow mi jege kilifa gi muy sëriñ bi wax ko li xew wax ko dëgg ji wax ko ne ko ah du nii nii la wala foogoo ñu defee nii wa saawiruhum fil amri fa isaa asamta fa tawakkal ala allah kon watawaasaw bil xaqi dénkante ci dëgg waaye nag watawaasaw bi sabri dénkante yi ci muñ bu yëf yi naqare yëf yi jafe muñal xam ne tey yonent Yàlla Muhammad mi ngay roy jafe woon na ci moom lool fanweeri fan yonent Yàlla Muhammad dana toog këram cin du fa tàkk fanweeri fan yonent Yàlla Muhammad fanweeri fan dana romb te cin nit du ko taal këram lu ñuy dunde dem ca toolu tàndarma yaay ji xaatu ay tàndarma pour luñ dundee ñetti fan yuñ jàll Muhammad mu ne li may lekk du ma lekk lu dul benn tàndarma boo xam ne Bilaal moo ko bokk waaw kon yooyu ñu nettali la ko sa yu yonent bi jaar na ci lii yow nga bëgg a jël sa àdduna yépp nga foog ne adduna dana doon ajjana ci yow déedéet foog muy neex foog muy naqadi foog tey mu toog a toog yëf dox bañ ne ñépp ëskëy togo togo tay bañ ne ci mbay yëf ci yàlla la ne ya yàlla mo muni wa tawaso bil haqq wa tawaso bis sabr tawaso bis sabr gogol moy tax ñu ne innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdawsi nusula ñooñu de di def li ma wax ni yeb yonent yàlla muhammad wax ko ci hadith ne annaasu kulluhum halka illa al alimun borom xam-xam yeb nit ñëpp alku nañ lu dul borom xam-xam lu ta borom xam-xam xolal nit ñëpp ku nañ lu dul borom xam-xam yi borom xam-xam yan la borom xam-xam yi nga xam ne li alquran wax li hadis wax li borom mag ñu baax ñi bind waxuma jël ay dégg-dégg yu bees di yóbbu ci ay technologie waaw comme technologie bi jamono bi fii la toll gis nga alquran ak hadis yi amul ay di de yooyu ñoom ak technologie. technologie bu ñu naan technologie ñooñu technologie mu ngi génnee ci seen wax sallallahu alayhi wa loo fi gis mu avancé loo fi gis mu yéem la mu tubaab moo xam defar na avion mo xam lum mu defar ci àdduna lu la yem yem mu ngi jule jógee ko sawaji mo mooy yonent yàlla Muhammad yonent boobu mu jógee yow nga am Seyduna Muhammad dara mënati la yem kon kooku du tegu ci yoon nañ xoolal borom xam-xam yi nañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo moo toog wax ne àdduna ñetti pilas ñoo yenu àdduna ñetti pilas ñetti pilas ñoo yenu àdduna بلاس يويو من لولا آه، آه، آه، لولا لولا الدنيا أربعة القوائم قوائم من الدنيا نينت بلاس لا بعلم العلماء ودعوة الفقراء وسقاوة الأغنياء وعدل الأمراء من بلاس ينو أدنى با الدنيا على جي إسعى دانوه تكو الدنيا كونين موي نينت bi ci borong mooy borom xam-xam yi seen xam-xam bi ñu xam di ko wax nit ñi ak ki am alal comme alxaaji ni nga ñi nga lim al haji turo daabo di ko jox jaami yàlla yi kooku kooku ci pilesu àdduna te ñu mel ni ñu bëri nañ ndeysaan bëri nañ ñoo xam ne laa nuridu minkum jasaan wala sukura duñ bëgg bëgguñ lii nga leen lii nga leen di tudd sax boo demee du leen du leen neex ci xol donte nag jamono ko laaj. kuy def lu baax nag léeg-léeg nga toog ci télévision wax ne diw sàngam baax na diw mooy def nàngam ñi am ni moom man koo roy ñi amut ñaanal ko yàlla mu gudd fan. kon borom alal yi ñi am alal ba noppi jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla xam nga akan ki amul dara ba toog di yalwaan ñu jox ko mu ñaan ñaanam pilas la xam nga akan président biñ dénk réew mi mandu gi mandu yore ko aduna bi kon ñeent yi tabarakallah yaakaar naa ne foog ma toj ko ba pare ma ko tojee ba mu toj ba mu tasaaroo ñu door dugg nag ci ñaar fukkeelu fan bi insha allahu rabbi ma joxala tabarakallah nga tàggoo xam naa dañoo tàggoo rek dellu santaat borom kër gi alaaji aboubacar bacili ak soxnaam soxna umi bacili duñ tàyyi duñ yoxi di si soxo ndax dëgg yàlla moo ñu jokkale gi ba a am ba bàyyi rek nga tëj ba ci beneen xaaj bi incha tëj bu dul tëj rek bu ko fee lii nag mooy waxtaanu koor ñu ngi ci naafila yi waaye nag dëgg dëgg nag actualité ak li xew tabaarakallahu yooyu yëpp foog ñu jéem leen a xaw a tasal yenn yu bëri rek. xam ne dañ ko yaatal di ko def euh, tabarka waaye danañ fexe ba fanweeri fan bi xam naa ne yow mu may déglu da ngay wax ne ah yow fi de moom yàgg na yow fi moom nangam waaye nag topp ñu rek bu soobee yàlla incha allahu rabbi maa ngi ak yéen ba léegi rek ci doomu aadama xëy na bu gëmee yàlla dëgg-dëgg nan la war a mel alquran lam ca wax xadis nga xam ne tamit tabaarakallahu mooy ñeent yi ma tëjee nag mooy xaddiis bi su ma ñëwee firi nag ba noppi ñu door a dugg nag ci beneen waxtaan wi incha allahu rabbi